xaraami sama cofeel xaraam mooy cofeel boo xam ne day topp boromam comme ko amee nit bor mi lay toppee shawqi mooy cofeel ak nam ma daje ki nga bëgg li nabi ñeel yonent bi mbëggeel gi ma am ak cofeel gi ma am ci yonent bi yu nafisu dana sawarloo xilaami ay xalimba sama fa tajri tey daw lil madixi ñeexal tagg wa tafrutu tey jiitu téere bi nga amee li mbind wér wa tufritu la bind tufritu mooy mooy mooy mooy mooy jéggi dayo mooy xaabaabal waaye tafrutu la wax mooy jiitu ci palaas mooy li ngay jàng allahuma jaalu sabqan wa faratan fi misaani waalide yi bu ngay ñu ngay jàngee ci ci néew wa gi ma am ci yonent bi ak mbëggeel gi ma am ci moom day sawarloo sama xalimba muy daw ci tagg te dafa jiitu ci tagg yi wa maada aliya ana lan laala ana lan war ma in jununtu ndam dofeef loo na ma bi xubbihi ci mbëggeelam bu ma demoon sax ba mbëggeel yonent bi dofloo ma ndax loolu am naa ci ayib waqad saara te mujj na min taxti ci ron sama waliidu ndaw wa ashmatun ak mag muy aji béjjaaw bu ma doxoon sax ci mbëggeel yonent bi xëy na ndax mbëggeel googu nga xam ne mag ñeeg ndaw yëpp ci lañ mujjee nekk ci sama ron mbëggeel la ma ci joxe rek mbëggeel gi xeeyoo na ko falay taala yedde di war ma law mu yeddaange fii métti ci tagg sang sama fama chituhu lu ma soob mat xan ci tagg danaa ko ko tagg walam falam aku nekkuma afrutu di xaabaabal ne ma ku nekk ma ufritu li may xabaabal nga xam ne kon riwaaya bu njëkk bi nga am ci bayti bu njëkk bi wéru ndax bu amoon bu wéroon rek mu dàqwante wax ji dàqwante fële jiitu lay firi fii nag mooy xabaabal lu ma neex rek ma taggee ko yonentu te xam naa ne du ma jéggi dayoo ci taggu ndax comme dayoom kenn du ci àgg kenn du àgg ci loo loo dul àgg mënoo ko paas fa baxrun géej la maanaam huwa baxrun min al asraari tukkee ci mbóot géej ak mbóot wala ilmu te mbir moom xam-xam zaaxirun aji bëri la mu ngi dóor comme du si géej gi jawaahiru ay urisi duram moom géej googu tusri dana xeeb al uquuda caq yi aji rafet fa tuxbatu def ñee ko wa badrun weer la min al anwaari tukkee ci leer yi wal hadiyu tamit moom njub gi taaliun aji fenk la waax jëla te rusloona gàccel na shamsan jant fiddiyaa ci leer fa nuxbat fa nuxbatu def ñeeñu ci loolu nga xam ne leer gi ñu ñeexal leer googu nga xam ne bu feeñee leeri jant bi sax am kersa ñun ñi ko moom war nañ cee ñeetu bi maanaa war nañ cee sawar walay sulwaxaa gayndeek xare la jëmmun ne daa kay aji bëri ji may saarimul ida jaakay noon yi la wa yaqsimu dana séddale amwaalal ilaahi alal yàlla wa yuqsitu day maandu mooy jàmbaar tabe di séddale alal yàlla ji te daf ci maandu doon na séddale am ku ñëw ne ko maandul mu ne ko bu maandu wut mooy maandu ci alal yàlla ji la wax alquran sax boo seetee ku muy tudd alal lu gën a bëri alal yàlla la ko tuddee wala mu ne léeg-léeg seen alal alali jirim saa bi nga xam ne ci yar jirim bi moo ko war ame amee yàlla seen alal la ko tuddee wala tuutu sufaha amwaalakum te loolu jirim bi moo ko moom yàlla ne ñi ñi nga xam ne xelooguñ bu leen leen jox seen alal ji te alal ji jirim ji moo ko moom loolu nag ci ngay xamee ne maanaam économie ci l'islam ni mu jàppee alal mooy na alal ji ñëpp a ko moom moo tax waruñoo jox waruñoo bàyyi kenn mu koy yàq yàlla wax ne wa anfiqu mimma jaalakum mustaxlafina fihi da ngeen dundale ci li ngeen xam ne yàlla daf leen cee wuutal comme moomu leen ko yàllaa ko moom moo tax li gën a bëri benn mu wax ne alal yàlla wala seen alal loo tax mu ne dafay séddale alal yàlla ji mooy alal ji nga xam ne mu ci loxoom rek wa yuqsitu tey maandu ci séddale gi foofu moom lil ida ñeexal noon yi fii tayihi nekk na ci biiram kullu nixmatin bépp mbugal kooku nga xam ne yërmaande la waaye ci biir ñi nga xam ne dañooy ñooy noon yi ñi noonoo mbugal la pour ñoom jalilun aji tedd la jamilun aji taaru la muslihun aji hewenal la wa huwa moom muxbitu aji maya la may gu bëri bu mel ni boo dóoree xet ci kaw garab bi ni xobi garab yi ruusee loolu mooy xabt buy ruus xam nga doo xam ñaatay ruus yonentu it buy mayee noonu lay mayee afaada jumu albiidi afaada jëriñ na jumu albiidi mboolooy weex ñi woo wote mbir moom moom abadahum toroxal na ñu weex ñi nga xam ne it dañoo weddi yàlla wa arshada te jubal man ka nga xam ne xat kaana nekkoon na lil xayyi ñeexal bew yaxbitu di dajtu maanaam di mbëkk di dem wa walaana nooy na li ahlil diini ñeexal ñooñ diine an nafa gayrahum muhammadun rasulullahi والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم أشداء على الكفار رحماء بينهم noonu la ko yàlla melalee moo ki saxaabaam ne dañoo tat ci ñi weddi yàlla waaye dañoo yërëmante ñoom ñi ci seen biir ñoom ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla mooy li bàyyi wax ci boppam alinu li man yaqul amina wa innani shadidun wa saabun isu qaadu ilal hawa mu ne maa nooy ñeexal danaa nooy ñeexal ku topp yonent bi waaye nag buñ ma buggee man rek jëmee ci bànneexi bakkan topp bakkan rek dañ ma fekk ma nekk ku jëfe yoon loolu ci wéraata muhammadiya la xabiirun aji xam la mu bii ci mbir biiri mbir yi comme ni xamee biteem basiirun aji gis la mu mbir yi waahibun aji maye la wowate moom moxsitun daa aji maandu la muhammadu muhammad mahwul kufri faat kéeféer mëddu diyaayihi mooy tàllaloog réeram qad jamaa boole na al abdaada ay safaan dafa boole safaan fii mu ngay faas fii mu ngay tàllal leer gi loolu mooy safaan yi yaalu mu ngi yëkkatiku di yëkkatitim li war a yëkkatiku wayax bitu mu ngi wàcci ngir wàccee li nga xam ne nii dafa war a wàcc alayhi salaatullahi li yàlla ne yàlla ne ci moom maa qaala feng wax na muxramul aji sopp raami shawqi linnabi yu